sunu mbokku téléspectateurs yi jërëjëf mbokku Sénégal jërëjëf képp koo xamante ni yaa ngi seetaan la 2 vie ci adduna bi nga jàkkaarlook la première chaîne privée tey jii ñu ñëw ci xew-xew bu mag xew-xew bu mag ku mag taxawal ko xew-xew bu mag ñu mag nar ko bëre di ay xale ci wàllu làmb bokk ci ay écrit yu nu ràññee ndaxte ñoom ñaar ñëpp écrit yu nu bokk kii benn bi doom la ci te it Balde am lu bari loo xam ne daf ko def ci làmb booba yàgg na dans les années 60 jur doom tey jii mu donn ko dugg ci biir bëre muy Ama Balde muy bëre keneen koo xamante ni nii dugg ci làmb def ci ay jaloore wane boppam wane jomam wane ngoram wane fullaam moom tamit ba tax tey jii mu bokk ci ñi nga xamante ne nii fi làmb di dem mi ngi ci def ay jéego ci wàll wi mu féete le 27 mai la lamb ji ki ko taxawal di Abdou Aziz Ndiaye ma toog ak moom nii ñu fas yéene nag tout la presse ñi ngi fi communicateur traditionnel toog bëri bu ci nekk ngi toog sponsor yi ñi ngi fi waaye làmb ngi nii joo xamante ni làmb ju am solo la am solo ci ñaari mbër yi moo xam muy Ama Baldé wala muy Guy gi ndaxte ku nekk ci ñoom ñaar jële ndam ci biir làmb dina la yóbbu ci beneen classe ndaxte yaakaar naa ne làmb ji ay classe a ngi ci classe yooyu nag fan la amaa jëm fan la guy gi jëm tey jii dina am luñ ci jot a xam waaye lii leeral lépp bu neexee yàlla le 27 lay doon stade Demba jóob et muy di drapo El Hadj Bekay Mbaye xam naa ni bariwul ngay présenté làmb wala muy émission bi ñu tuddee le drapeau bi nga war koo présenté yaakaar naa ni loolu bariwul waaye nekk na loo xamante ni nii il faut ñu jéem ci dara di am mbégte di xam ni combat bi bu boobaa du drapo El Hadj Bécaye kese mais drapo tout la presse la drapo képp kuy communicateur traditionnel sunu xel dem ci sunuy baay yi fi nekkoon démb ak bërki démb sunu xel dem ci alaaji Moustapha Ndiaye sunu xel dem ci alaaji Ablaye Naar sunu xel dem ci alaaji Maxtaar Jàllo Jibril Fall ñooñu ñëpp neewoon fi tey jii kenn ci seeni doom lanu fas yéene sargal ki ko sargal di Abdou Aziz Ndiaye mi nga xam ni moo taxawal combat bi muy deuxième édition mbokk yi mbégte dab nu ba tax li ñuy def rek mooy dañuy bàyyi ñaari mbër yi ñu nuyoo ñu daal di dugg ci biir débat bi ak wan leen lu bari loo xamante ni suñuy reporter demoon nañu ci ñaari gox yépp ku nekk ñu xool naka la say wàll di waajale bii komba waaye li ñuy def mooy dañuy bàyyi ak Abdou Aziz mu nuyoo ba pare ñu doog a dugg ci biir waxtaan bi Abdou Aziz. jërëjëf Bécaye ah ginnaaw bi ma sant yàlla nag julli ci yonent bi maa ngi nuyu ñu toog fii ñëpp. ñi nga xam ne tey signature de contrat bi moo leen fi indi ñii bokk ci staffu ay Production ñii nekk ay kóllëre El Hadj ñii nekk ñi ànd ak mbër yi ak journaliste yi yëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu Sénégal gépp nga xam ne ñu ngi seetaan ak le monde entier yëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan tey la 2STV di nuyu aussi suma ay partenaires suma ay sponsors yi nga xam ni su bis bi melee nii ñoom ñoo ci jàpp maa ngi leen di nuyu bu baax. di nuyu aussi suma ay waajur yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ñu leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal seen fan di nuyu Sénégal yëpp di nuyu guy gi di nuyu Ama Balde fas yéene jëm nag incha allah la le 27 mai ci stade Demba Diop comme ni nga ko waxee rek Bécaye doon bis boo xam ne bis bu mag la bis boo xam ne dañu la ci fas yéene sargal ndax képp ku la sargal rek làmb yëpp la sargal ndax El Hadj Bécaye yow joué nga rôle bu am importance ci làmb loolu moo waral incha allah ñuy jox amateur yëpp rendez wu ci kàttanu yàlla le 27 mai ci diggante Ama balde ak guy gi ñu dem ba ci kanam jërëjëf ci waxtaan incha allah. jërëjëf Abdou Aziz ñi ngi am mbégte léegi dañuy daal di dugg ci waxtaan bi Ama Baldé Sénégal ñu ngi lay nuyu bis bu mag nga nar a bëre le 27 yow ak guy gi lan ngay nuyoo waa Sénégal. auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw ba ñu sante yàlla julli si yonante bi di sant monde bi yëpp di sant waa Pikine du sant waa Géejawaay di sant Sénégal yëpp ak bépp suñu fan su fi nekk di sant suñu père yi fi nekk ak suñu morom mbëri ak suñu bokk géwal yi ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bis ba yàlla may ñu ndam bu gën suñu jërëjëf guy gi dafa mel ni ñun ñu ni seetaan ñun koriande la nu gis xaw ma lu nu gis mbir mu doy waar aousubillahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi sant yàlla julli ci yoon tamit sant sunu ñaari waajur di nuyu sunu sëriñ sañu asekk borom ndigal di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg te wér di nuyu sama yaay bu baax ñetti yoon di nuyu sama papa bu baax di nuyu sama adversaire di nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu sama wóllëre suma xarit suma wëlëre suma xarit muy sëñ Abdou Karim mbake borom Mbackaremul Ahla mu sëñ Fàllu suma xarit la di ko nuyu bu wër di nuyu ñoom sëñ xaadim ñëpp ak jëriñ ñi nekk ak ñoom. di nuyu Bekaay Mbay di nuyu waa Géejawaay Bekaay dinaa xaw a jël tuut ci nuyoo bi. Mhm. du nuyu waa Géejawaay parce que combat bi combat waa Géejawaay la mais fa desaat tamit. Pikine ak Géejawaay. benn la guddi guddi jàmm bëccëg bëccëg jàmm mais mi ngi ñaan ñi ñi ngi ñaan yàlla mu des géejawaay ndax lépp banlieue ba la jëm. Mhm. di nuyu promoteur bi ndax def na lu jafe tëgg ñaari jàmbaar ñëpp dëkk banlieue bi bëriwul ñu koy def ngir bëgg jàpp na banlieue bi. Aziz dama koy wax chaque jour defaloo ma dërëm sama doolaar nga may bëral mel nañ la war a sant gërëm la parce que da def lu jafe bégaay bu ma dog defal ndànk damay nuyoo di nuyu sama yaay war a Sarr di ko jiital ci nuyoo bi. di nuyu sama kër fi may yewoo Aïda Sarr ak ñoom jonn yi ak ñii fanaan sama buntu gaal yëpp booy waa fan si club nouvelle vision nouvelle vision waaw man xaw ma ñoom comprendre nañ ko di nuyu ñëpp fan si boobu. di nuyu defal ndànk di nuyu. jërëjëf waaw dama nuyu waa États-Unis gi ma ci ko. temps la ñuy liggéeyee tey danga nuy may après di nga ñëwaat. di nga am liggéey et puis may fàttali mbokku téléspectateurs yi muy guy gii di Ama Baldé ñun danoo mel ni ñu nekk fu doy waar ndaxte façon débat yëpp bu ne feeñ na fi man daf may fàttali bi ma nekkee xale di seetaan Koriande ñaari mbër yi ñoom lan may fàttali ngañ Koriande Kolobaan Koriande ñaari tali yooyu ñoom ñaar ñii lii ñu indi te lii daanul lii daana nga ca entraînement ya lii daan mi ngi ci kër ga loolu rek laa leen di waxal waaye mbokk yi comme que ñoom ñi ngi toog nuyoo noonu léegi li ñuy def mooy ku ci nekk dafa am nu la say mbokk waajale dañuy dem ak sunu réalisateur Babacar mu wax nu fiefu ñaari mbër yi lan moo fa nekk ñu dellu siwaat ci plateau bi waaw côté boobu moom ñu ngi ci préparé sérieusement de gauche à droite ñu ngi préparé sérieusement mais nag xam nga préparation moom en général secret lay doon. deuxièmement ki ñu tuddee drapeau bi muy Bécaye Mbaye dafa am lu mu joué lu bëri ci làmb bon kon lu am ci làmb rek jomb ko bon euh, combat bi nag moom combat la boo xamante ni vraiment man mën naa ni njëkkante la woon bon temps waxoon naa ko si benn journal. Euh, combat guy gi ak euh, Ama Baldé dafa meloon ni combat Balla Gaye ak Modou Lo foog ñu bëre quoi euh, ñu libéré nit ñi kenn dem kenn xaar ñoo ngi ñaan nag sama borom ñun ñu dem moom mu xaar waaw loolu la ñuy ñaan yàlla daal. duwawu simi jagore ama bolde mi nawmo ha ha dow rek suuf quoi taw di ko hone ama mbimi sa min mi gayni sa gaynani taw min mi gaynani sa fek ha gay yo a parade tan min pari mi hiiri yalla hokkimin ndam o dow fof inchallah nekk France di la seetaan lan nga leen di wax. waaw di leen wax ni Sali Saba c'est Gouy Gui c'est préparation combat c'est Ama Baldé c'est c'est grand grand grand des combats c'est contrat mu oubien a des France oubien Gouy Gui c'est partenaire oubien contrat oubien tey signature contrat euh, je suis très qui frappe Ama Baldé qui daan incha allah rapidement ci 10 secondes et eh, 20 secondes ok. di wax ñoom Laye Ndiaye bi nga xam ne Dazane Mara di wax non ñoom xam nañ Dazane Mara sax di wax ni am you know daal you know Bagal bi nga xam eh, parce que man nee naa suma carrière ginnaaw yàlla su àggsee fii dama koy waxaat Bagaye Mbaye ci la quoi kon drapeau te Bagaye Mbaye moom rek mënu ko quoi. Mhm. mais faaw ñu jiital ko. mais kon drapeau faaw ñu. xanaa ñu def ci lu ñu mën ak mënu mën bu soobee yàlla ba yàlla may ñu ndam quoi bu soobee yàlla combat dafa lay jox ko doole ndax boo bëri ko xam ne day simple rek il faut nga yokk sa doole ndax moom bëreem simple fa nga yokk sa doole. non guy guy day yël ba jàpp kon agressif agressif ma koy agressif am ma ah bëri mi la xam nga ko gis nga xam nga yàgg loolu bokk la guy guy day yël ba jàpp la rek. xam nga xumb dafa am nekk signature bi xumb yuux xëppoo suuf du foofu de